jërëjëf mbokki internet yi buur a ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel dellusiwaat ak bi yéen ci benn jotaay xam-xam ki ma fi dalal wax naa ko wax si ko Serigne Fallou Dramé di sët Serigne Moussa borom Daaru Pakcaar comme ni ñu leen ko tàmbalee rek àllarba bu ci nekk rek ñëw ak yéen jotaayu xam-xam waxtaanee xam-xam ba yow mii seetaan xam ne ñaan yàlla lu am la lu wér la lu nekk la. lu fi yàgg la lu fi sax la te lu fi dul jóg la bay la amee diini Sëriñ Fallou Bollé ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi la nga néeg nga lisaan sur Bprod Média ak Bour Gueweul bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama fa radiyallahu taala anil habdil xadimi riddan yasmulul ala wa sawil mahabba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu buur maa ngi lay delloo am nuyu mm-hmm. di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ak fu ñu mën di nekk rek mm-hmm. ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan yàlla mu defal ñëpp tawféex ak jàmm xarakaat mm-hmm. ah, yeeg sakkanaat yépp yàlla na yàlla barkeel ko ñi nga xam ne it ñooy woy jaaxle yi ak lu mën di sabab seen jaaxle ñoo ngi ñaan yàlla mu teggi leen ko incha allah bismillah sëriñ Fallou fa ñu daan tàmbalee rek ku ne xam na ni. Mhm. jamono yi actualité ci wàllu làmb moo gën a dominé. Mhm. waaye rawatina si actualité ku ci mel ni. Mhm. Euh, Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ni waa Pastef rawatina Ousmane Sonko teg na ko comme plan B. ñu ci bari gëmuñu nag ni plan B boobu plan B bu mën a bu mën a existe la. tey ba tey mbiru Boy Niang Modou Lo yaa la nga waxoon waaw waaw booy booy booy booy ñaamoot loo de moom la ma ci waxoon rek laay laay laay feddali moom lay dëgëral moom laay tàkkiit te mooy Modou Lo moom ñi dajee ci moom dafa bare day nitu gàllaaj nga xam ne it lu mu def ci gàllaaj effort bu yem yem yàlla da ko ci dimbale loolu dafay am ci façon nit yi ba noppi it li mu nekk da ko gëm nag bëgg ko it te loolu it day suye ci lépp lu nit mën di dugg gëm-gëm waaw waaye nag bu mu ko taxa a naagu nag ndax mel na ni gis naa ne eh, kii nu mu tudd. ngóor si booy ñaa ci boppam. Mm-hmm. booy ña ci boppam mu ngi def effort yu mag a mag ci wàllu ci wàllu gàllaaj ak tegtal. Mm-hmm. waaw loolu moom moom na koy bàyyi xel. Mm-hmm. ak lu mu am am doole ci wàllu bu mu ko taxu naagu benn yoon. incha allah sëriñ Fallou eh, maa ngi la fekk ngay nafar waxuma sax alquran bi waaye comme ni nga koy defee téere xam-xam. sëñ Fall mën mën naa xam li mu yor ci téere xam-xam moom. Uh-huh. ci lu muy dox téere seet la wala lan la. waaw bii de ab seet la lañ koy wax. alhandasiya fi kasfil asraar al xafiya. Uh-huh. Eh, Abdul Fattah yi moom moo ko bind day koo xam ne daanaka moom mm, yàlla da ko may lool ci wàllu woowu. Mm, kasful baat bi sax boo ko xoolee di nga xam lu muy teg kasful asraar al xafiya mooy wuññi décortiquer. mbir yi nga xam ne dafa nëbbu mhm. al asraar mooy ay mbóot ay secret alxafiya mooy yi nga xam ne dafa nëbbu mhm. donc kon téere bi noonu la tudd mhm. mooy seet bi nga xam ne dafay wuññi dafay décortiquer dafay feeñal yi nga xam ne dafa dafa nëbbu trop donc téere bi boo xoolee bopp bi rek balaa nga koy ubbi di nga xam ne kon seet la gu doy waar ak li muy tuut mi lépp lépp lépp daanaka loo soxla ci wàllu seet mu ngi ci léegi nag seet bi seetu àddat lay doon Euh, par exemple boo ñëwee ci paas bi ndax la may bëgg nit ñi ma di leen dimbale ci. buñ ko mhm. bëgg a jëfandikoo ñi nga xam ne mos nañ dara ci wàllu daara. Mhm. xëy na ñooñ lañ mën a jariñ euh, boo ñëwee dalay wan niñ koy jëfandikoo euh, yoon ñaari ñaari yoon la njëkk ñaari seetin la am ñaari yoon yoo ko mën a jaaree. Mhm. yooyu yëpp nag yaa ngi koy mën a fekk ci buntu paasub 57 boo ñëwee foofu di nga fa gis ñaari yoon yëpp dina lay expliquer. soo bëggee def xàddat boobu. nan ngay def pour mën ko pour mën ko génnee. Mhm. léegi nag boo ko defee ba noppi dina la sànni ci buntu bi nga xam ne moo la tax a jóg su ko defee nga ñëw ci buntu boobu par exemple bu fekkoon ne ci wàllu commerce la. Mhm. nga xam ne ci trois ngay ñëw su boobaa boo ñëwee am na noo koy xàddatee ba mu génneel la ci buntu trois boo demee fan nga koy fekk. ci biir ko defee boo demee ubbi ko dina la wax lépp loo xam ne mooy information yu aju ci nit kooku. moom dafa la jox information pare jox la solution. lépp lépp la lay jox solution bi lu mu mën di doon bu dee sarax la dina la ko wax. bu dee turu yàlla la dina la ko wax lu mu di doon rek loo lu mu di doon rek solution bi moom dina la wax lii mooy solution bi. Hmm. donc day téere boo xam ne li muy tuut tuut nii noonu la noonu la doy waar noonu la doy waar. su ko defee nag boo ñëwee fii di nga gis ñaari yoon moo am dafa am lu ñu tuddee euh, maxloom min majhool. Hmm. dégg nga boobu benn yoon la ci ak maxloom min maxloom. Hmm. loolu ñaari seetin la maxloom min maxloom mooy diw dafa ñëw na man damaa bëgg nga seetal ma nàngam sama soxna si sama place bi sama kër gi loolu mooy maxloom min maxloom mhm. kon moom tudd na la li mu bëgg seetlu loolu yoonu boppam la mhm. di nga xam fi ngay jaar téer bi expliqué na ko euh, maxloom min majhul nag waa ji dafa ñëw na dafa ma bëgg rek nga seetal ma moom tudd na la dafa bëgg nga seetal ko waaye waxul li mm, joxul la joxul la direction wala indicatif mu ngoog waxul la li muy seetlu booba tim am na yoon boo koy jaaree ngir mën koo génne li nga xam ne moom la moom la bëgg xam ci boppam donk téere la bu doy waat ci wàllu almaxisa muy dund dégg nga wàllu koom jënd ak jaay wàllu njaboot wàllu feebar eh, dégg nga ku dem xamuñu fu mu nekk wàllu gént fonction dégg nga ay noon sëy ku ñu jàpp koso lu ñu sàcc tukki dégg nga xaajo bi nga am ndax dana faju wala du faju ak lan mooy solution bi commerce mi ndax dina am tono wala du ko am dina am perte sax ba sa xarit bi sax ndax est-ce que sa xarit bi mu woote sa diggante yow dëgg la ci moom wala du dëgg yëpp gis nga ko mhm. noonu nga koy toppee ba mu ba mu jeex ba ci ki nga xam ne dañ ko jàppal su procès muy dem procès bi ndax dina ci am ndam wala du ci am ndam bu ci warul am ndam lan mooy solution bi tax mu am ci ndam donc téere la bu dooy waar daal ku ko ku ko ku ko ku ko am daal euh, te comprendre ko ndax mhm. day laaj it nga jàng arab bu xóot dégg ko bañ a juum mën a adat itam siifu te siifure dégg nga mm. da koy man tamit mm. boo ko mënul nga dem ci ñi nga xam ne maîtrise nañ ko ñu jàngal la ko loolu moom xam naa sëriñ si ñoo koy gën a yittewoo mm. muy lu ama am solo lu maanaam li bokk sañ Fallou ci say résultat mm-hmm. mooy ginnaaw sell yi ak nangoo jàmm yàlla gi jub gi mm-hmm. gis naa sëñ Fallou fonk na loolu téere yi boroom xam-xam yi pour di ci gindi ko mm-hmm. di faj soxla jaam yàlla yi ba bu ci diiree dana jàpp waaw àddina moom du ñëpp a bind waaye borom xam-xam yi xam-xam yi ci dënn lay nekk. Mm-hmm. bi mu nekk ci dënn itam dafa am ñu yàlla baaxee li ne seen bi ni ñu mën ko seen dënn ñu mën koo yaxal bàyyi ko fi. Mm-hmm. ndax bëgg ñi ñëw seen ginnaaw ñu mën a jariñu ndax loolu bu amul. kii dem mm-hmm. daanaka day yóbbuwaale xam-xamam. te loolu boo xoolee ci réew mi di nga ko gis réew mi bari na ay kàngam yu am xam-xam ci domaine bu nekk waaye yàlla mayut leen ñu mën a bind am na ci ñoo xam nag bind nañ. bari na ci xam yoo xam ne tey bu ko doon bind di ko fi bàyyi ñii ñëw ñëpp daanaka danañ ci mën a jariñoo rawatin ñu koy bind ci làkk woo xam ne nag waa réew moomu dégg nañ ko kon lu mm-hmm. baree bari rek mën naa yomb ci nit ñi su ko defee nag borom xam-xam yi dafa ci am ñoo xam ne li ñu xam dañ ko yaxal bàyyi ko fi téere yooyu itam dafay nekk lu barkeel moo xam lu jógee ci xasaal yi la wala lu jógee ci keneen ku mën di doon rek mm-hmm. ba ci Abdul Fattah Atuuxi yi moom ci wàllu lasraar ñëpp dañu dañ koo nangul doole bi mu ci am ak mën-mën bi mu ci bi mu ci mu ci bi mu ci am mm-hmm. Euh, donc loolu la moo tax nag téere yi itam comme loo xam ne ni ma ko expliquer un plus un la dafa lay jox deux euh, donc yu mel noonu nag euh, mat naa bu baax mhm. waaw mat bu baax ndax bu fekkee ne yow mi koy def juumoo ci ci ni nga koy defee rek résultant ba mu lay wax moom noonu rek lay demee dara du lu mhm. ko du ko du ko teggi mhm. suñ Fallou ginnaaw njàng mi ku xam suñ Fallou xam fi mu bokk suñ Moussa la sa ndono ci xam-xam. Mhm. ndaxte dafa bëgg laal ci boor bee boor bee mhm. boori xam-xam bi la. Ah, mhm. géeju nga ci macha allah ñëpp d' accord nañu. koo jëflanteel d' accord na. Eh, eh, jamono yële daa am client boo jëflanteel mu toog yàgg woo ma ne ma. sëñ bi woo naa ko jotuma ko de. xaw a sikki sàkk ma ne ko ñaar mooy am tey lan àjjuma mu naa ma ne ko ban waxtoo jot mu ne ma heure sàkk ma ne ko ñaar moo am. mën naa kitaab ci mbaaxu yàlla. ne mu ngi ci jumaa ji. wala mu ngi ci waaye li mu wóor bu wóor. mooy li mu wax ak yow. xanaa bakkanam rot tey ci tey balaa waxtu wi. mooy tee cag-cag bi nu woo la ne la soxna si foo ne. mu ne ma kon dalal naa sama xel. dix minutes après mu woo la nga ma pourtant maa ngi woon ci jumaa ji. ma ne ko gis nga li ma wax mu woowaat ma quelques ne ma cag-cag ma sax nee na mu ngi koy indi ma ne ko li ma lay wax la. bu yàpp yëpp mel ni res. paaka du ci am yoon. dëgg la dëgg la sëñ Fallou ndonoom ci xam-xam ak ñaan yàlla ak secret yi mu fekk sëñ Moussa maanaam ndonoom ci secret. Mhm. secret ñaan yàlla gu gaaw taaf taaf. Mhm. waaw sëñ Moussa de moom moom moom daanaka dama ci dul bëgg wax ndax yooyu ñaare boo ci dee wax day xaw a niru euh, propagande xam nga nit yi te wax ci sa bopp day xaw a day xaw a jafe tuuti. waaw du yomb daal du yomb nit di wax ci boppam ndax. Mhm. Eh, ni ko ñenn gisee mën naa bañ doon demee noonu te fekk yow li nga ci jublu mooy fax susil xasasa mhm. la'allahum yatafakkaroon ji alxuraan wax mhm. yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del nettali xistay gaa yu baax yi jiiti woon mhm. ñëw yonentoog ñi doonul yonent ñëpp de ko nettali ndax ñi koy dégg mën cee am njàngat mën cee jariñu loolu bu buñ ko dee def xay na ci anam boobu lañ koy dugal mhm. waaye yooyu daanaka du tax ma di ci taxaw lool mhm. lu tax it dem ci taxaw lool mooy nit ki moom ak ku la mën di jur ak ku mën di nekk sa maam itam mhm. bu fekkee ne jaaroo ca tànk ya mu jaaroon defoon na mu defoon boo liggéey fa mu dugg doo fa dugg la mu am itam doo ko am tilka umatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna xamaa kaanu jeexantalu saaru euh, wu isaa loxoo defe naa ne la balaa ngaa dugg sa yoxoolu yàlla dafa wax foofu nee na ñu seen maam la ñu woon dëgg la ñu ñu baax la ñu woon den nañ def lu baax waaye ñoom lañu doon def pour lu baax pour ñoom la. Mm-hmm. yéen itam bu ngeen bëggee lu baax fàggul leen ko seen bopp. la seen maam yi doon def duñ ko duñ leen ko laaj yéen yéen li ngeen di def duñ ko laaj seen maam yi. Mm. kon loolu dafa am solo nit ki di ko bàyyi xel. lenn nag am na lu kenn mënul weddi mooy bokk fu baax dina dimbale nit ki ci mbaax yomb ko. Mm. bokk fu baax dina dimbale nit ki. baax yomb ko nit nga xam nit ki di dund ci benn millier environnement bu nga xam ne. Mhm. mbon néew na fa nit naa dimbali nit ki ba mu mucc ci mbon. Mhm. donc noonu mu amee ci environnement te ku ne mën koo xamal sa bopp. nit dina nekk ci environnement bu baax yàlla di ko xiir ci lu baax mu jógee fi dem ci beneen environnement bu nga xam ne bii boobu safaan moo fa ëpp nit ki soppee ko complètement mhm. noonu mu amee ci bii an noonu la amee itam ci jaaruwaay nit ki askan wi ko yàlla wàccee mu jaar ci baax go ñooñee baax ak sell ga da koy dimbale ci ba moom bu waroon a def effort cent pour cent dafay mel ni que fekk ni ñuy defal ko cinquante yi. Hmm. baax da koy yomb ndax lii mu bëgg a def ci savane gisul ko ci wàllu néeg ndeyam gisul ko ci wàllu néeg baayam dawalee xelam wëndeel dina def dina xam ne lii mu bëgg a def xamul ko ci kii bi loolu su ko defee motivation lay doon loo xam da koy motiver ci di ko jëmle ci baax bu dee xam-xam nag sëñ Moussa. moom am na loo xam ne sax ñemewuma ko tudd. ndax ku yeggoon ci bu waxtu julli jotee jant bi ci boppam moo koy sone ci sa nopp Euh, kooku wax dëgg yàlla euh, xam-xam dayoo xam-xam foofu la mën a yem. Euh, dayoo xam-xam foofu la mën a yem te it ci nettali ci sa wax nañu ne. ci nettali yi ñu nettali bi muy ñëw ci sëñ bu mag bi sëñ bu mag bi dana ko Moussa yow de sa lépp nga fi indiwaale mooy bi ngay ñëw sa lépp mat na yaa ngi mel ne rek ku yor waxande mooy walis. boo mm-hmm. xam ne li nga soxla lépp a ngi ci biir. ñu tëj ko mais caabi ji moo moom nga yorul caabi ji nag ci man la nekkoon. kon loolu li ñu fi bëgg a wax mooy laataa muy muy ñëw ci sëñ bu mag bi jaar na ci barab yu bare. di nit ku te ñu ñu ñu ngi yor lettre boo xam ne sëñ Touba moo ko bind sëñ Moussa te lettre ba bopp lettre ba da caa def fa ilaa tafsir Moussa Dramé. allahu akbar kon sëñ bu mag bi ku mu reconnaître na yow oh! mu fassir nga. kooku sa xam-xam kenn dootu ko nattable te loolu mm. sëriñ bu mag bi moo ko moo ko ko bind ci loxoom fa ilaa tafsir dara Dramé mm. fa maa mujibu haatihil barawa ilaa xawluka hendi kasa wa kasa te la ko waraloon mooy sëñ Moussa dafa yoroon addiye ju bare bari loo joo xam ne lu ko indi njaarim jafe-jafe la ndax bari waayu addiye ji mm-hmm. mu bind sëñ bu mag bi ngir lu mën a jël si addiye sëñ bu mag bi am ñi mu yebal bind ko leetar na ko ñooñu di ñëw bu ñëwee nag leen jox addiye ji donc kon koo xam nag yeggoon na foofu ci jëf euh, ci joxe addiya ak ci liggéey ak ci xam-xam bu yaatu euh, kon ku ñu ku ku ñuy askanere ci ci moom rek di nga def effort lu bari di nga ko jomb mm-hmm. waaye itam yàlla mën na laa dimbale ba boo góorgóorloo xam-xam mën na laa yomb effectivement foo dem ci biir Sénégal rek ay ay njabootam ñu ngi fa yor daar di jàngale di mm-hmm. mokkalal ay nit di leen jàngal xam-xam foo dem rek laa wax daanaka ci Sénégal gi waxuma la ak daaru pakkacar ga nga xam ne foofu mooy baasam nag fa nga xam ne mooy dëkk bu sell ba fa ko sëñ bu mag bi sancal nga xam ne dëkkub leer la dëkkub xam-xam la dëkkub wilaaye la dëkk la boo xam ne mboolam lu ñuy tere doo ko fa gis doo fa gis kuy fubal doo fa gis tux doo fa gis ñuy jaay dara lu ñuy tere donc mbaax rek lañu ñu xam fu mel noonu ko fa yaroo wax dëgg yàlla doo xam lenn lu dul loolu ku ci nekk liñ la nàmpal rek loolu ngay mën a géex ku nekk itam liñ la nàmpal loolu ngay loolu ngay mën a xam. su ko defee nag du tee nag mhm. Mhm. Euh, bu nit ki wootee. Mhm. daan buur man sëriñ bi dama am ci moom confiance. maanaam te loolu seen première. contact lay doon. mooy dama daf de ma. waaye sant yàlla ba li muy njort. su ngeen jëflantee. Uh-huh. tuuti rek. Uh-huh. mu ne ah buur man de la ma doon njort. Uh-huh. wax dëgg yàlla yàlla defal na ma ndax laata maa ñëw ci moom. ab sëriñ saraxaloo na ma mbaam mu weex. saraxaloo na ma gëlëm. jëndloo na ma ay nag. waaye sëriñ bi ca la ma ko fekkoon bët ba ma amoon ci moom. noonu la yàlla dëppale suñu mbir. dëppale mbir la wala man-man la. des fois nag ab sëriñ dina man te yàlla dëppale mbiram ak ak ki koy ñaanloo. waa tawfeex da dina ciy am tuuti tawfeex. Mm-hmm. Hmm, tawfeex dina ci am mooy xam nga man yëf yi damay wax ne moom xam nga xam-xam moom foog naa ne euh, mooy baas bi waaye du hmm. xaaya bi hmm. mooy baas bi mooy bidaaye bi waaye du du du du nihaaya bi euh, loolu luñ ko mën a firee mooy te yàgg naa man samay waxtaan sax lu ci bari daanaka damay damay jàngale te it eh, samay jàngale du damay toog rek di wax lu ma neex. Mm. lu ma wax lu ne dama koy delloo ci aaya alxuraan wala hadis. wala mm. waxu kenn ci mag ñu baax ñi. loolu itam liñ ciy bëgg rek mooy nit ki xam ne kii li muy wax tegul ko ci eh, bànneexu bakkanam mm. te it sañuñ ko xamuñ leneen. loolu nit ki mën na am xam-xam bu baree bari di def te yàlla du ko antul. Mm-hmm. loolu du dara nit ki mën naa am xam-xam bu bari di def yàlla di ko di ko antul. foofu nag problème bi mooy bien vrai que lii mën na dellu ci njub ak sellal gi nit ki di def moo tax lu mu def yàlla def ci tawfeex def ci barke. Mm-hmm. ndax ñaari yoon rek moo am dégg nga. Mm-hmm. yoon wu baax ak yoonu safaan. Mm-hmm. siraatal mustaqim yoon bi jëm ci yàlla ak yoon wu jëm jahannam léegi nag bu ci nit ki jaar bii nit ki mën na ci nekk di def safaan. di def yàlla di antu loolu istidraaj lañ koy tuddee ku dem ci masaal yi di nga ko ci fekk hmm. koo xam ne mu ngi dëkk ci mooy ak def safaan di nax nit ñi di leen tromper di leen toroxal ba noppi teew lu mu def mel yàlla da koy barkeel hmm. wala lu mu dugg yàlla bàyyi loola loola sotti ndax yàllaay bàyyi mu sotti hmm. loolu istidraaj la sa mujj bala nga fay jógee mujj gu ñaaw ngay am istidraaj mooy jayal rek jayal lay tekki nga xam nag dafa jël beneen yoon bi jëm ci yàlla te lépp lu muy def mu di ko sellal di ci xool digganteem ak boroomam boobu moo dàq ndax boobu boo amee lijaaba plus que sa at yi di gën di dem say mbir day gën a yomb. Mm-hmm. saa yoo gën a yeewoo rek yëf day gën a jàppandi. te da dem ci yegg ci lijaaba lijaaba nag dafa am ay façon ku ci nekk euh, ni la ko yàlla di joxe. Mm-hmm. nu ko euh, dégg nga euh, am na loo xam dafa xóot xam naa ne du lu ñu mën a waxtaanee fi waaye. Mm-hmm. am na koo xam ne lijaabaam ci noppam la nekk lu toq ci noppam day sotti. am na koo xam ne lijaabaam ci loxoom la nekk maanaam yàlla sottal sa waaw mu am na koo xam ne li jaabaam ak barkeem ci tànkam la nekk barab bu mu dugg barab boobu bu beekooroon barab boobu day naat noppi naa mm-hmm. beeko comprendre am na koo xam ne li jaabaam ci làmmañam la nekk lu mu tudd am na koo xam ne li jaabaam ci loxoom lu mu bind day barkeel lu loxoom tàbbi loolu day kii yooyu ay xeet la yoo xam ne lenn lu ci nekk liggéey nag moom moo koy maye am na ku yàlla defal tawfeex yëpp dajee ci moom loolu ndimbalu borom bi la mm-hmm. waaye mooy mm-hmm. mooy moom weddi mën a nit dina ko donn ndax it nit dina yeewu rek yàlla def ci moom dara loo xam ne loolu coobare sunu borom la innal fadla di yadi la yuti may saa yàlla nee na coobare ci loxoom la nekk moo koy jox ku ko soob mm-hmm. nit ki mën nga ko ëpp mérite yàlla di ko jox sens boo xam ne joxul la ko mm-hmm. dégg nga effort yi ngay def ak yooyu mën naa du ko def moo xam ci jàng ngeen di def moo xam ci wàllu ñaan yàlla la moo xam ci wàllu commerce la moo xam ci wàllu woo mën di dem ak ñëpp ñi ñi jàng boo xam nañ ci dara safla ñi jàng xam nañ ci dara ñi jàng mooy di nga am koo xam ne yéen a ngi bokk di jàng effort yi ngay daj ci njàng moom daju genn wàll gi. te lu ngeen te lu ngeen jàng moo la ko gën a dégg. Mm. loolu def defu yàlla la. waaye lépp solo daal mooy nit ki d'abord lii moom nit ki da ko war a jàng ba xam ko muy lu mu xam dégg nga xam bu baax a baax li muy def loolu it moo jiitu ci lépp lu mu mën di doon. Mm. sëñ sëñ mag dafa wax ne bu ngeen ji ragalee gàcc lépp lu ngeen di def na ngeen ci jiital xam yaa maxsar subaab in xiftu moo xajal fa lu man xalal amal mooy lépp looy def na nga ci jiital xam ba noppi door koo def mm. su ko defee nag sellal gi door a ñëw ak def ko na ko war a defee ko defee la ci des nag nga door ko bàyyi ci loxol borom bi ndax yàlla nag mooy sottal mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. macha allah mu ngi noonu seen yóbbalu ba ni ñu koy faral di defee rek buur géwél di ci ànd ak uh, sëriñ Fallou Dramé góor yàlla wax dëgg yàlla di borom xam gaa ñi moom dañu yàkkamti àllarba bu ne. heure bi sax léeg-léeg bu ma xewee neg nege sax. Mm. ñoo ma naan buur sëñ bi fu émission bi toll. waaye yóbbalu àllarba mu ngi noonu mbokk mi kon di leen jox dig daje ba beneen àllarba incha allah sur Bprod Média ngeen ànd ci buur géwél ak sëñ Fall Dramé.